Dieng yow mag nga ci ñun pour doore yëf yi umpul kenn ni que dañoo xëy bés Ousmane Sonko def point de presse daan ni am na wax na lu ko njëkk ñor am na ministre bu mu gis démb assemblée nationale avocat yi di ko toroxal député yi député yi di ko toroxal ba génne rapport mu ni rapport boobu du dëgg waxul dëgg rapport boobu am na rapport bi ko épinglé rapport IGE la daal di yëkkati téléphone am daal di ñun tey jaaxle bi ñu jaaxle mooy moom fan lay jële ak fan lay dence ñun tey li ñu jaaxal mooy kan moo koy jox waaye du ñeme ñoo miim parce que moom lépp tey na ko ci loxoom ah yàlla bi dara tëwul ñu dajaloo waat fii defe naa ci beneen saal bi lañ ñëw réunion ma ni leen Ousmane Sonko waxul dëgg Ousmane sonk bu waxee dëgg na génne rapport Ousmane Sonko bu génnee rapport man dinaa tënk samay loxo bopp ma dem jox sama bopp yoon parce que ci biti du sama place boobu ba léegi li ci am bu leen neexee ñu bañ koo nettali parce que ñun ñëpp ku ci nekk seede la ci waaye wax di fàttali dafa baax wax di féddali dafa baax parce que loolu mooy taxawaayu gor loolu mooy taxawaayu nit ku baax bi ma koy def politique taxul woon ma def ko bi ma koy def utuma leneen lu dul setal sama der bi ma koy def xalaatuma leneen lu dul bañ a utal sama njaboot ak samay doom woy bu ñaaw parce que man sama woy jur utaluma woy bu ñaaw ba tey ma mën a taxaw jàkkaarloo ak nit ñi wareef gi war bàyyi ci doom wareef gi war bàyyi ci kër wareef gi war bàyyi ci jabar wareef gi war mag ci ay rakk wareef gi war doom ci ay way waajuram ci lu mu fi def wareef googu moo commandé ba lépp lu yàlla maye lépp lu yoon maye dinaa ko def pour setal sama der ku ci gis leneen ci kanam tuuti di ngeen xam ni que yàlla day àtte bi loolu amee ñu dem tribunal lafa doon am yéen ñëpp ko gis wër-wërloo dàqantoo mais tey dinaa ci wax loo xam ni comme que yoon àtte na aujourd'hui il est établi que Ousmane Sonko fenkat la c'est établi c'est acté part un acte de droit mën nañ wax biñ ko njëkkee woo pour wax leen rek biñ ko njëkkee woo mu dem dik ba mu demee dik premier jour bi daf ni xamul lu ko fi indi bañ ko waxee li ko fi indi mu ni mi ngi dem jëli firnde yi moom Ousmane Sonko mu ni nañ ko may mu dem këram jëli firnde yi te suba sa mu ñëw ñu laaj ko mu ni naam lii moo ko wax waaye sax dafa juum waa ji ni ko waa ana firnde yi mu ni firnde yi moom dafa juum ci IGE ak IGF IGF la bëggoon wax waa ji ne ko waa d'accord léegi rapport IGF bi indi ko te mi ngi yor classeur mu ne ko bu ñu demee ba ca juge ba ca moom mii sax defe naa wax ko ni ko bu dofee bañ dem ca juge ba li koy dal dina gën a garaaw li may wax nii yëpp ci PV lañ ko wax avocat yaa ngi nii toog bu fekkee ñeme na ba am fitu dem procès dina gis dinañ wax leneen leneen yeneen wax yu dul waxi rapport daal di jël crasseur am ay preuve am ak firndeem dem ñii ñoo xam yoon ku ci am laaj nga laaj ko nan lañ ko cité man defuma procédure droit man setel sama der laa bëgg ak wan askanu senegal nit que kii fenkat la bi loolu dooree mu jóge dig ak citation bi waa këram yëguñu ko ay xaritam yëguñu ko képp kum nekkaloon yëgoo ko da ko doon nëbb ba muy dugg dikk da doon nëbbatu da doon nëbbatu di rase mur pour wax leen nit ki ngeen nit kiñ ko séqal nan la mel dama leen di wax firnde jour ba mu wuyi ji dikk lépp lu yeew yi amoon responsable politique parti bi mu bokk lépp lu amoon ci responsable politique jour boobu yaa ngi buntu dikk di jàppale ñaari député yu bokk ci ñoom yuñ jàpp Ousmane Sonko lëmasu kaalawu nëbbatu ni kaña dugg biir dig seetiwul sax député yi parce que ñemewul wax leen ko donc ba ñuy commencé te doon nëbbatu defe ni mën na ko lijjanti bañ ku ko siiwal parce que moom wóor na ko wóor yàlla ni que li mu wax dara amu ci joge ci loolu ñu site ko bañ ko cité mu xam ni bay woy nu mbuus mu commencé naan ay yëguma ko ay convoqué wuñ ma yàlla seede na ni que procédure bi amul dara luñ ci def loo xam ni dañ ko def ndax man dama am ndomba tànk wala dama bokk ci parti politique lépp ci yoon lañ ko teg mu xëy suba teel ñu convoqué ñu la deux mu xëy suba teel daan ni moom jotul convocation huissier bi ko yóbbuloon convocation bi muy wërloo wër ak moom bu demee siège woo ko mu ne ko maa ngi sama kër bu ñëwee këram mu ne ko maa ngi sama siège bu ko woowee mu ni ko maa ngi Ziguinchor bu génnee leneen lay wax ci mujj ki mu ne ko jox ko sama gardien moom moo wax ñu jox ko ko le deux mu am fitu taxaw ci sénégalais yi ni moom moom gisul convocation déggul convocation mbir mi dama ciy sant yàlla parce que ñu bari dañ cee dugg dama ciy sant yàlla parce que ñu bari dañ ciy xame bari na ci ñoo xam ni amoon nañ cofeel ci moom wala foogoon nañ ni que lu muy wax am na bi ñu yëgee li xew ci jëf bi xeeb nañ ko donc man xeebuma liñ ci am am na ñu foogoon ni que lépp lu mu wax téye na ko yor na ko ba ñu yëgee am firnde ni que lii la def ak huissier yi ñoon dañoo génn ci moom man de preuve laa laajoon ba tey ci waxtu wi Ousmane Sonko indiwul benn firnde buy wax ni que moom document yooyu mu téye woon lu am la léegi nag man damaa gëm sama yoonu réew dama gëm kuréel yi téye sama réew damaa gëm institution yi téye sama réew dama gëm république donte nag jullit akkan la mais dama gëm république parce que ci loolu la ñu nekk nit a ngi nii koo xam ni